su ngeen seetloo personnelu ville de Thiès ci 2019 ba 2020 2019 personnel boobu mi ngi toll woon ci 58 employés permanents maanaam 2018 2019 boobu ba 2020 personnel boobu mi ngi toll woon ci 58 2019 laataa 2020 bi di jeex ñu yóbbu ko ci 78 employés permanents avec benn masse salariale qui tourne autour ci début million 117 millions 117 millions boobu mujj dem ba 187 millions 187 millions avant 2020 bi di jeex ci masse salariale boo xam ni Thiès dina leen ko fay ci 2020 ak 2021 mu jóge ci 78 employés permanents ci 31 décembre donc 2021 mu dem ci 116 employés permanents 116 employés permanents masse salariale bi jóge ci 187 millions dem ci deux cent trente millions neuf cent trente neuf mille sept cent soixante dix sept francs maanaam deux cent trente millions yoo xam ni Thiès da koy fay ci ay salaire li tax may taxaw ci loolu mooy personnel boobu ay contrat durée indéterminée lañ leen defar lu matul ñaari at daanaka dañ ko doubler dañ ko duble mais biñ leen di jël li ci ëpp teguwul woon ci soxla dëkk bi ci besoin dëkk bi waaw soxlawu ci woon tey jii rapport yëpp wane na ni ñi saytu mairie bi yëpp wane na ni li xoj dëkk bi li xoj Thiès mooy masse salariale boobu 230 millions yoo xam ni dañu koy génne di ko fay ay salaire mu diis trop ci Thiès diis trop ci mairie bi ca xoj bu baax a baax mairie bi ca li ëpp ci personnel boobu ah ñi ngi fa mais liggéey bi liggéey bi li koy doxal dëgg-dëgg soo ko jëlee génn lu mat vingt personnes waaw ça veut dire quoi de manière plus concrète des gens payés à ne rien faire loolu li ko waral mooy municipalité ci Sénégal mairie ci Sénégal tradition bi mooy clientélisme politique casé moo ko indi moo indi loolu ba tey jii ñi nga recevoir ñëpp li walla rapport yi mooy le personnel au niveau de la mairie de ville de Thiès am na ay contrat yu ma fi fekkoon contrat yi moom c'est plus simple décision yi ma ci jël mooy du ma renouveler benn contrat depuis bi ma ñëwee ak léegi loolu pour que mairie bi mën a souffler ndax mairie bi mënul di liggéey rek pour ngir fay ay ay salaire suñu jëlee ci wàllu koom muy gestion financière suñu xoolee recettes yi nga xamante ni prévoir woon nañ ko ci 2021 bi levé ko mu ngi woo toll woon ci 3 milliards 33 millions 3 milliards yoo xamante ni 33 millions 499 561 francs cees mu jul encaissé lu dul 990 millions 739 mille 643 francs muy un taux de recouvrement qui tourne autour de 32 pour cent loolu màndarga la ci néew doole bu mairie Thiès néew doole ndax bu ñu nee suñu budget mi ngi toll ci 1,8 milliard waaye xam ngeen ni dëkk bu toll ni Thiès deuxième ville du Sénégal capital bu toll ni Thiès ñi ni budget mu ngi toll ci 1,8 milliard loolu honoré wuñu waaw 1,8 milliard taux de recouvrement qui tourne autour de 32 pour cent muy un manque à encaisser qui tourne autour de 2 milliards 42 millions 759 918 francs CFA ca loolu mën na gën a métti li tax mu gën a mën a métti surtout l'année prochaine mooy gouvernement bi dafa am benn fonds bu muy wax le fonds PACASEN muy dimbali Thiès di dimbali maire yi fonds boobu dañ ko nar a la ne prochaine lu mu néew néew deux cent cinquante millions la lu tax ñu nar ko perte mooy le budget dañ ko war a voter avant le 31 décembre équipe bi fi nekkoon ah voté wul woon le budget bi ba ñun bi ñu ñëwee la ñu jël budget boobu pour voté ko bi ñu ñëwee lañ koy doog a voté ca fond PACASEN boobu boo voté wul budget bi da nga koy ñàkk ñu ngi def ay pexe di waxtaan ku ñu xam ku mu ku ci mën a jàpp nga jàpp ci waaye lu toll ci deux cent cinquante millions Thiès nar na ko perdre ci budget l'année prochaine ku ñu ci mën a jàppale rek nga jàppale ñi bépp doomu Thiès fu mu mënti nekk mu mën ñi ci jàppale lu tax ni 250 millions Thiès soxla na ko ndax am na fu mu mën a dem ci biir dëkk bi suñu jëlee bor yi ci dëkk bi bor yi mairie bi mi ngi toll ci 783 millions 642 mille 914 francs 700 millions de bor ci mairie boo xam ni sa budget un milliard et quelque la ci ay bor bor yooyu ñetti catégorie am na ci lu ñuy wax des dettes déjà visées par le receveur dettes yoo xamante ne engagé nañ ko visé nañ ko fay rek daanaka moo ci des mi ngi tourné yooyu ñu ngi toll ci quatre-vingt-onze millions quatre cent dix huit mille quatre cent dix huit mille quarante francs am na ci ay bor yoo xamante ni engagé nañ ko waaye visé guñ ko yoo xamante ni fekk nañ ko fi mi ngi toll ci trois cent cinquante deux millions trois cent cinquante deux millions ay bor huit cent soixante et mille deux cent trente deux francs am na ci bor yoo xamante ni contentieux la yoreel nga ma waaye indil juste lu ko justifié lii maire bi moo ñu ko yoral contentieux boobu mi ngi tourner autour de 339 millions 362 642 francs loolu aussi ay bor la yoo xamante ni mairie bi yoreel yoreel na ko ay ay entreprise yoreel na ko ay nit waaye bor yooyu audit bi am na leen lu mu ci wane bor yooyu du noonu lañ koy fayee de parce que audit dafa wane ni léeg-léeg nit ni yoreel nga ma suñu ko woowee ñu def suñuy enquête papier ya muy indi ak li ñu ñuy déclaré dañuy gis ni bokkul entre li fournisseurs yi di wax ak li nga xamante ni moo nekk papier am na ci lu ci lëndëm yu bëree bëri yoo xam ne bor yooyu duñ ni rek yoreel nañu bor Thiès 700 millions. ñi ni dañuy ñëw ku indi sa papier ñi fay ko yooyu dina am càmbar bu leer leer boo xamante ni dinañ ko def bala ñuy fay bor yooyu bu loolu weesoo dafa am lu ñuy tudde propriété communale propriété communal mooy loo xamante ni espace la maanaam terrain la mën na am terrain bi am lu fa nekk mën na am terrain bi dara nekku fa mais terrain bi cees moo ko moom mooy ville de Thiès moo ko moom ville de Thiès moo ciy dogal moo xam dafa am lu mu fay def moo xam da koy luye daf ci am ay barab yoo xamante ni Thiès daf ko ñoo ñu di fay ñoo ñooñu ñu ngi dugal ci dëkk bi at mu jot treize million neuf cent soixante quinze mille francs dinañ ko dugal ci dëkk bi propriété communale boo xam ni Thiès moo ko moom ville de Thiès di ko luwe ñi ngi dugal ci dëkk bi lu toll ci treize millions neuf cent soixante quinze mille francs mais treize millions yooyu sarax la sarax et je vais être très clair sarax la ñuy jox Thiès ci treize millions. dafa am benn décret bu président de la république signé muy le décret numéro 2010 400 du 23 mars 2010 bu fixé am na ay espace yoo xamante ni ci Thiès ku fay louer ñaata nga war a fay le mètre carré ñi ngi war a fay le mètre carré 40 000 francs le mètre carré par an 40 000 francs le mètre carré par an dinaa ci ñëwaat propriété communal bi mu ngi dugal 13 millions 975 mille francs CFA par an alors que bu fekkoon ñooñu fay nañ li ñu war a fay Cees dëgg ñu toppatoo mbir moomu lañu war a fay ñu war ko fay Cees lu mu néew néew cees waroon na cee gagné quatre cent vingt six millions cinq cent vingt mille francs quatre cent millions xool leen treize ba quatre cent ci ay boroomi alal ay société yoo xamante ne ay milliards la ñuy def chiffre d'affaires lañu ko luye ñu toog ci barab yooyu dinaa leen ci jukkil yenn bi ci jiitu mooy Sonatel parce que damay wax ak yéen lu leer dangeen a war a xam seen dëkk bi fan la toll seen alal fan la toll yan loxo ngeen ko teg ñi ngeen ko teg ci seen loxo ñan lañ ko luye ñiñ ko luye ñaata la ñuy indi ci dëkk bi moo tax ma ciy wax nee naa nag pression bi bari na. ñu bëri ñaañ ma bul wax ci lii ñii ay borom yu doole fii mais kenn mënuma tee wax ku dul suñu yàlla suñu borom lu ma ci góobe gar cees jaral na ma ko wax naa benn nit mu ñëw di ma ji ma découragé naan ma dëkk bi dafa ba ay boroomi doole ma ni ko sama diggante ak wàccees bu ci safara doxoon suñu diggante ma traversé safara bi dama wuti waa Thiès dafa loué 1000 mètres carrés dañ ko ko loué 1000 mètres carrés orange orange di fay 6000 francs le mètre carré par an soit 500 francs le mètre carré par an par mois soit 500 francs le mètre carré par mois jaaykatu jën bi sax boo ko luyee woon dina la fay lu ëpp lool. Sonatel moomu di dugal di fay Thiès 6 million par année 6 million par année toog ci mille mètres carré mille mètres carrés. loolu lay tudde sarax bu fekkoon appliqué nañ le décret du président de la république numéro 2010 400 du 23 mars 2010 décret boobu fi Sonatel di fayee fi Orange di fayee 6000 francs le mètre carré mi ngi war a fay lu mu néew néew 40 000 francs le mètre carré kon ñoom ñi ngi ñuy sar ngi sarax weer wu at mu jot 6000 francs le mètre carré ca waroon nañoo dugal ci dëkk bi 40 millions lu mu néew néew par année waroon nañ ko fee dugal lu mu néew néew bu fekkoon li ñu waroon a fay fay nañ kon at mu jot ñoom ñi ngi def seeni chiffre d'affaires di yóbbu seeni dëkk bàyyi ñu ci ndóol bàyyi ñu ci ay jafe-jafe dama ni ce contrat là je veux à Orange doit être négocié, renégocié et sera renégocié. ñun kenn ñu fekk suñu dëkk au cœur de Thiès au cœur de la ville nga occupé 1000 mètres carrés di ñu sarax at mu jot sarax laa wax at mu jot 6 000 6 millions. franc ca pendant temps jamono bu ne accident am ci yoon wi ndax yoon wu bon xale waroon a jàngi oto mbëkk ko ndax booba traçage bu baax sax amu fa dëkk bi lëndëm këris agression am fi je veux parler à la Sonatel ce contrat doit être renégocié et ce contrat sera renégocié je vais être très clair sur cette question CBAO CBAO CBAO mi ngi occupé 800 mètres carrés 800 mètres carrés ñoom it li orange di fay la ñuy fay 6000 francs le mètre carré par an soit 500 francs le mètre carré par mois jaaykatu jën bi sax boo ko luyee woon dina la fay lu ëpp loolu 6000 francs le mètre carré par an soit 500 francs le mètre carré par mois. CBAO mu ngi fay Thiès mairie Thiès lu mu néew at bu jot 4 millions 800 la fiy dugal alors que bu fekkoon respecté nañ le décret numéro 2010 400 du 23 mars 2010 nga xam ne décret bi président de la république moo ko signé wax ni ñoom li ñu war a fay lu mu néew néew c'est 40 mille francs le mètre carré par an. ñoom waroon nañoo dugal ci dëkk bi lu mu néew néew 32 millions xool leen entre 32 millions ba 4 millions ca booba ñun ñu ngi gën a su ñuy doom gën a nekk ci ndóol su ñuy école gën a su ñuy yoon gën a bon dëkk bi gën a lëndëm këriis Thiès barab yu bari amuñu ndox quartier yu bari amuñu ndox loolu c'est un problème boo xam on n'en parle pas dans cette ville am na ci ay quartiers yoo xam comme ay village ci boppam dañuy root ci ay teen di wuti ndox sonn trop ah je veux m'adresser à la CBAO ce contrat doit être renégocié et sera renégocié je vais être très clair sur cette question mu des EMG boobu nag moo gën a garaaw ñu bëri nee nañ ma bul wax dinaa wax sëriñ Moussa Ka dani murit yi ñoo ma woo ni ma tawatal te bu ñu woo saw làmmiñay woo xarnu bi Cees ñoo ma woo ni ma tawatal te bu ñu woo moo tax foog ma wax je défendrai les intérêts de cette ville je ne peux pas me kenn nit mënuma taxa noppi ku dul suñu borom EMG depuis 2014 mi ngi occupé mille quatre cent trente cinq mètres carrés mille quatre cent trente cinq mètres carrés Mbaye Gueye EMG musuñu fay un franc un franc bind naa ko yóbbante nañ ci ñu fay li ñu amal cees parce que huit mois huit ans yooyu dañ koy fay mënta ñàkk wax naa leen bañuma ñoom ñu continuer fa ak projet bu ñu fa mën a am mais bala ñuy wax dara bor bi ñu am huit ans yi dañ koy fay lu mu néew néew at mu jot 1435 mètres carrés yi li orange di fay baaxul de mais bu fekkoon dañ ko appliqué ci barème mu orange bi waroon nañoo dugal lu mu néew néew 8 millions 610 mille par an waroon nañ ko fi dugal envoyé nañ leen nag par voie wax leen bor bi ñu amal Thiès mu toll ci cent millions 880 mille francs nañ ko fay suñ ko fayul dañuy jog amul la neen je vais être clair sur cette question maqaama ñëw ci dëkk occupé 1435 mètres carrés di le cœur de la ville ca fayoo loolu nag barke yëggu fa yaakaar naan ci dëkk bi donc loolu bëgg naa ci leeral mu des yeneen benn bi mooy Mikelaan ak coow man maa jël décision am yéene ni Mikelaan fi mu ne foofu du palaasam ñun bi ñuy nekk xale foofu jardin moo fa ne woon G2 moo fa newoon dëkk dafa am ay barab yoo xam ne ñépp ñoo ko bokk war a nekk ay espace vert yoo xam ni ku amul xaalisit boo fa demee féexlu li ma gën a metti ci koor gi dama daan génn taxaw sama biro ma gis mag ñi di dàq koor ñëw ba ci place bi foofu toog ci gris toog ci giri ca foofu di xolu Cees jardin bi nekkoon foofu dañ ko fa bëgg a delloo delloo si ñoom Mikelan ñu signé woon benn contrat 1er janvier 2015 avec mairie de ville bu Thiès ñu renouvelle leen ko ci 2019 bi contrat boobu war a dem ci cinq ans mais ci contrat bi dañu wax ni mën naa am rupture unilatérale ça veut dire ñaar ñi séq contrat bi mairie bi bu ko neexee génn ci contrat boobu su fekkee benn ci engagement yi benn parti bi respecté wu ko ci engagement bi ci gën a leer mooy xaalis boo xamante ni Mikelan yoral nañu ko mu toll ci 10 million ndax gëj na fay waxatuma laak Mikelan ba ma fa demee ak suñuy équipe la fa nekk ci tilim tilim la fa nekk ci insécurité ak leneen leen dara laa mën a wax jël ko engagement foofu jardin public la woon nous remettrons le jardin public qui la ba bas allah c'est un engagement que j'ai pris et nous nous battrons pour que foofu quel que soit le prix je suis engagé mu des yeneen mooy yi gën a garaaw waaw scandale financier yoo xamante ni fekk naa ko ci dëkk bi ñu bëri tinu nañ ma ci ñu bëri wax nañoo ak man ñu bëree bëri nee nañ ma bu ci wax mais est-ce que mën naa ci noppi mais su ma ci noppee di complice dafa am benn entreprise bu gañee benn marché mobilier et matériel administratif en 2021 xaalis boobu mi ngi toll ci 19 millions 974 mille 450 francs CFA entreprise bi gañe marché bi ni day meublé waat mairie Thiès bu koy mairie di waxee meuble ci kër yi defaraat meuble yi indi ay taabal indi ay chaise defaraat ay télévision mairie bi rafet muy 19 millions 974 mille 450 francs CFA moom mu def ci ay pexe exécuter marché bi jël xaalis bi def ci poosam wuti ay faux PVM yoo xamante ni ñuy liggéey mairie ñoo ko ko liggéeyal bindal ko ni ko yow yaa gañe marché bi indi nga matériel bi installé nga matériel bi ci lépp ay kàcc la benn chaise bu gën a ndaw duggul mairie dernier équipement bi am mairie c'était 2014 waaw nit ku am barke jàpp nga ne am nga barke ci dëkk bi ba mën a gañe marché dix-neuf millions neuf cent soixante-quatorze mille francs bari ay pexe encaissé xaalis bi def ci sa poos bari ay pexe jël ay pauvres travailleurs nga signalé ay faux PV de réception ni matériel bi ñëw na nga ni yow am nga barke ba loolu kenn du ko wax ku ma ko mën a tee wax nekkul ci dëkk bi je le dirai je le dénoncerai je le combattrai je lui ai ak ña tax ci dossier bi yëpp ña ñuy yónni le seul compromis que je peux faire sur cette affaire mooy qu'il rembourse jusqu'au dernier centime c'est le seul compromis que je peux faire benn compromis laa am ci dossier boobu bu ma depuis deux mois maa ngi ay pourparlers ak ñoom dañuy jàppoon ni damay caaxaan benn compromis laa ci mën a def mooy xaalis bi ñu jël ñi remboursé ko waaw xaalis bi ñu jël travailleurs yi les pauvres ñu signalé leen ay papiers ñëpp dama leen a woo sama biro laaj leen ñu ne ma dañ leen a indil ay papiers ni leen signalé am na ci ku jigéen koo xam xaw tuuti sax mu jooy tuuti mu ni dañ ko indil papier. ni ko signeel moom mu signé ma waxtaan ak suma avocat mu ni ma liñ la wax na ko huissier consigné huissier bi dem ñoom ñu bañ lañ ma wax sama bureau nag buñ ko wax huissier parce que xam naa ni dañ leen ko diggal ma jox leen demande d'explication ñu bañ ni duñu répondre demande d'explication bi ba date bi expiré ma wax ak suma secretaire général parce que comme mooy chef de l' administration ma ne ko waxal ak travailleurs yi parce que am na foo xamante ni bëgguma fa yegg ak ñoom kat la suñu rep bu ñu répondrewul sama demande d' explication dinaa suspendre leur salaire bi ñu xamee ni caaxaanuma ñu doog a répondre demande d' explication boobu muy c' est du faux c' est un marché fictif marché boobu ak ñi ci taq fournisseur bi nga xam moo ko gañe benn compromis moo mën a am mooy xaalis boobu ñu restituer ko jusqu'au dernier centime waaye loolu am na lu ko gën a garaaw loolu li muy garaaw garaaw yépp am na lu ko gën a garaaw li ko gën a garaaw xam ngeen lan la ndax jàpp naa ni lu nit bëgg-bëgg alal war fee man war fee mën a bàyyi cimetière yi nag ndax ñun ñëpp fa lañ jëm lu nit bëgg xaalis war a fee mën a bàyyi cimetière yi même booy jël alalu waa ñiy dund waaye ñi dee nga mën leen a muñal sax mairie Thiès defar benn marché cimetière cité Balabé 2 benn mur boo xam dañ ko war a tabax mur bi benn côté bi mairie Thiès est moo ko war a tabax li ci des ñu war ko yeggale mairie ville moo ko war a tabax ñi lancé benn marché marché boobu mi ngi toll ci dix-neuf millions yi moom ñu bëgg chiffre dix-neuf la dix-neuf millions mille deux cent 19 millions 937 mille 280 francs tabax muru cimetière bu njamoon foofu du garaw aka ñoo bari pexe mais suñu sëriñ bu mag ba maam Cheikh ma Tijaan si daf ni bari pexe nekk ci ak njuba ko gën a wóor léeg-léeg nit bari pexe lool am expérience lool ñu koy defal ay certificat muy dem ci àdduna ba fu ne bari pexe waaye gis nga pexe yooyu musiba la bu nekkul ci ak njub yàlla nañu yàlla dimbali delloo si ci ak njub yoonu siraatal mustaqim bu ñu ci nekkul yàlla nañu yàlla dimbali gide ñuy delloo si ñu ci yoon woowu ñu exécuter marché boobu loolu mooy lan mooy gaay wut nañ seeni papier ñoom nee nañu cimetière yi nekk balaabe ñoom nee nañu tabax nañ ko nee nañu ciment ba saf na nee nañu fer ba mat na nee nañu mool ya doy nañu nee nañu mason ya def nañu seen liggéey ba cimetière ya tabax nañu ko ba mu pare ñoom ñëw nañu indi seeni papier duggaat mairie jaaraat ñi ñu jaaroon ñi signé leen te ñi leen di signé génnuñu mairie de ñoom ña nga toog ci seeni bureau ni leen macha allah liggéey bi rafet na ciment bi doy na feer bi doy na maçon yi mën nañoo tabax liggéey bi mat na ñu signé leen ko ñu jël xaalis ba lekk dem seen yoon. te tey ku mu weddi li may wax bu la neexee soo génnee fii nga dem ci cimetière yi site balaa bi waaw ñu ne ma naa noppi loolu mais fan lañ ko teg. mais loolu su ma ko nee su ma ko noppee di naafeq su ma ko nekkee di noppee di complice ñi bu ma ko wax ñi kenn du ko fi waxe je leur ai dit benn compromis laa ci mën mooy xaalis bi ñu jël muy million 19 millions 937 mille 280 francs qu'il rembourse jusqu'au dernier centime c'est le seul compromis huissier bi dem na fa constaté ko tous les dossiers sont avec nous désormais c'est maître Moussa Sarr qui va défendre les intérêts de la ville de Thiès maître Moussa Sarr le grand avocat mooy défendre les intérêts de la ville de Thiès maître Moussa Sarr muy le matériel du mobilier muy les cimetières nous allons engager une poursuite une action judiciaire dem ak ñoom ci yoon auprès du procureur de la république soit ñu rembourser xaalis bi soit ñu porter leen plainte barke yëggul nag ci Thiès barke yëggul nga se xaalis lekk def ci sa poos dem te kenn du ko wax loolu barke yëgg gu fi ci dëkk bi loolu dama ci bëgg a leer scandale yooyu mi ngi fi ci yenn yi nga xamante ni jukki na ko su ngeen xoolee dinañ la ni Cees amul koom-koom dinañ leen ni Cees dëkk bu ndóol la ndekete mbir yi suñ ko jaaraloon ci yoon ci yorin wu rafet am na 412 millions 545 mille francs yoo xam ni mën nañ ko yokk ci Gafaka Thiès loo xamante ni ci propriété communal kese lay jóge am na lu toll ci million 225 millions 777 mille francs 886 francs yoo xamante ni mën nañ ko yokk ci Gafaka Thiès loo xamante ni ci impôts communaux yi la jóge muy 638 millions yoo xamante ni chaque année day nax saay yoo xamante ne ay pexe yu simple Thiès mën na ko récupérer dugalaat ko ci dëkk bi loolu su ngeen xoolee fi dëkk bi toll ci ay jafe-jafe ci budget bu néew doole ci dëkk bu lëndëm ci dëkk bu amul sécurité ci dëkk bu tilimoon ci yu bari yoo xam mairie dafa waroon a taxaw ci ceesuwaay gisuñu suñu li muy jafe-jafe ñun nag dafa nekk un